waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax voilà toujours comme niñ koy defee rek force reste au peuple résistance waaw damay ñëw rek def vidéo bu gàtt xam naa temps bi bariwul waaye ñi koy dégg dinañ ko mën a jottali ñi nga xam ne jotuñu ko parce que les jeunes sont sur le terrain ñu ngi def liggéey bu extraordinaire dama bëgg a dalal xelu sénégalais yi am inquiétude que peut-être xeex bi melul niñ ko bëggee man man naa leen garantiral ne xeex bi dafa jaggi dayoo maanaam yegg na foo xam ne ñoom ci seen bopp xalaatuñu woon ne xeex bi mën naa yegg foofu bàyyi leen loolu xel ndax xeex bu doxul ku ci dagg internet laaj leen seen bopp boobu question bu fekkee xeex bi comme ñoom niñ koy waxee xale yi génnuñu xeexuñu léegi lan moo waral dagg internet bi laaj leen seen boobu boobu question benn la deuxième question bi laaj leen seen bopp question lan moo tax ñu dem ba dagg TikTok xale yi ils sont tellement efficaces que vraiment macha allah ñaanal leen xale sénégalais yi te ngeen continuer leen encourager te bu leen jéem a jàpp xale yi ci biir kër gi yéen seen waa borom kër yi voilà xale yi il se bat pour leur souveraineté xale yi xeexuñu pour benn doomu aadama d'accord Ousmane Sonko moom mooy leader lii nga xam ne moom mooy projet Pastef bii mais projet Pastef pas-pas la ak ngëm-ngëm dafa mel ni nga gëmee religion parce que xam ngeen li ñuy ne religion islam is a way of life ñii sàmm ñi ñi indi Pastef genre mentalité boobu la ñu am maanaam Pastef Pastef la xale yi fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen changer stratégie buy dox bu leen changer stratégie buy dox saa boo leen jëlee oto yi baare leen yoon yi ngeen bënn ruu oto yi su oto yi nekkee camion te mënu leen bënn ruu yi fi ñuy defee air bi maanaam air bi fi ñu koy solee damm leen ko yu bari ci camion yi weñ la boo ko dammee pono bi day peer ba jeex def leen loolu à travers tout Dakar yéen ñi nekk seen koñ yi seen gox yi peeral leen auto police boo leen ko gisee sànni leen ci ay grenade la euh, sànni leen ci cocktail yi boo leen ko gisee dégg ngeen lépp loo leen man continuer leen ko équipe guddi bi ñu ngi def liggéey bu fantastique kontaan nañ ci yéen ñaari équipe rek guddi ak bëccëg bu leen leen lijjanti bu leen toppatoo bu leen leen faale fi fi ngeen teg seen tànk foofu rek la am na ci aussi ay journaliste ay journaliste dama bëgg jot sama beneen téléphone bi ma joxe tur parce que am na ci ay nit yoo xam ne ay tappalekat lañu ngeen génn ci seen tappale boobu ñu nekkuñu ci. voilà di fol di photo di filmer xale yi di ko yóbbul Antoine Diome dugguñu ci loolu génn leen ci seen banditisme yooyu balaa ñuy wax rek ngeen ngeen ngeen jooy comprendre nga ñun doxuñu ci loolu. ñun doxuñu ci loolu ñuy ne. Euh, euh, la journaliste Ngoone Saliou Diop xale yi ñu ngi ñaaw njot ci yow Ngoone Saliou Diop wala Ngoone Saliou plus particulièrement gis nañ la ñu bindal la fale ne voilà menacé par les apéristes xaw ma lan seen jeu yooyu ñu nekkuñu ci xale yi bu leen nangu journaliste bu leen topp yéen am ngeen loo leen photo woo am ngeen loole bu leen photo seen kanam yi bu leen wax ci vidéo yi wax leen date bi rek man nga ne le 3 aut wala le 2 août pour ñu xam date bi te nga nga boo mënee changer sabat le 3 août 2023 le 2 août 2023 voilà changer leen seeni ay baat parce que soo leen changé wul seeni ay baat ñi leen xam dañ koy génnee yéen ñi nekk ci kaw kër yi ak parentère yi di filmer faites attention à ne pas filmer la figure des combattants bu leen figure bu leen photo kanamu combattant yi bàyyi leen loolu xel ville morte comme niñ ko waxee rek comme ni xale yi joxe maanaam yoon bi ville morte paralyser leen dakaar rek continuer leen paralyser dakaar ak économie dakaar bi continuer leen ko paralyser Dakar paralyser économie bi rek ñun xeex la ñuy def gatsa gatsa xeex bi ñuy def moom la suñu maam yu baax yi daan def jaam yi ko defuloon ñoom ñoo fi nekk nii tey di noot suñu ay doom boo xoolee différence su Macky Sall ak Ousmane Sonko li américain di wax is night and day kenn ki souverainiste la muy Ousmane Sonko Macky Sall est un allié de l'Occident Macky Sall jaam la day wor jaam la jaam foto jaam la xale fa ngeen teg seen tànk foofu rek la bu leen changer continuer leen paralyser Dakar maanaam booy dëbb xam nga booy dëgg pour nga am sunguf da ngay dëbb ba mu mokk dëbbal ba mu mokk dëbbal ba voilà dëbbal ba mu mokk bu leen leen faale da ñi leen dina laqatu bu leen leen fale taal leen fépp taalal fi nga nekk yéen xam ngeen am ngeen xel kenn ku nekk fi mu nekk na gérer foofu boo leen demee comme ni ma leen waxee oto yi dàmm leen chambre à air yi rek maanaam fi fi fi air bi di duggee ci camion yi boo ko dammee air bi yëpp day génn voilà bàyyi leen loolu xel surtout bàyyi leen xel bakkanu doomu aadama maanaam les sénégalais lamda fexe leen ba boo leen di taal oto wala ngeen di def dara amul doomu aadama wala liir surtout nit takkul xaleem ci ginnaaw oto bi bàyyi leen loolu xel toujours voilà bu leen sànni rek sans connaître xam leen lan mooy lan balaa ngeen di attaquer toujours vous êtes assez intelligent vous êtes assez intelligent ay bandi lañ ko seqal bandi nag boo ko seqee ak moom dang koy jaay yëfu wëyu danga koy jaay yëfu wëyu saay-saay woyooy baayam dangeen di mo wok wol wol leen ba mu mokk rumuj fi mu ne nekkatuñ ci jàmm boo leen jàppee ces jeunes mécréants de l'APR la ngeen jongalaat leen comme ni ngeen defoon boobu ci jam ñaajo xam ngeen les mécréants de l'APR la ñu rey lammi ñi ngeen di gis ci télé bi yépp koo leen ci jàpp jongal leen ko da ngeen di génne samba àllaaram bi ngeen jël paaka dagg bu leen hésiter parce que loolu li muy def mooy ñi ci des ñiy wax dinañu xoolaat seen bopp da ngeen di génne sàmba àllar bi jël paaka capet dagg parce que ci xeex la ñu ne ci xeex la ñu ne amul sentiment amatuñu sentiment ñi yor finance aussi ñi may waxal xam ngeen seen bopp fexe leen ngeen jàppale xale yi voilà waxuma benn parti politique nit ñi ñun les combattants ñun ñi yor finance fexe leen xale yi jot ci yéen ñiy financé aussi financer leen on bo besoin de l'argent voilà xeex xaalis moo koy def xale yi dañu nekk ci terrain bi bu ma xaalis fay kenn pour mu dem xeex waaye nañu am outi bu doy am lekk am naan pour mën a nekk ci terrain bi di xeex xale yi ay jàmbaaru yàlla lañu xale yi ay góoru yàlla lañu billaahi wallaahi tallaay dañ leen bëgg ci suñu biir xol we love you and we appreciate you xam leen ne billahi l'histoire retiendra yéen ñëpp dinañ leen décorer xale bu ñàkk bakkanam ci combat bii ajana nga jëm ba pare dinañ la tuddee ay tali tuddee am di nga am mémoire ci Sénégal loolu dañu leen ko garantir nañu xeex xeex rek mooy dagg buumu njaam suñu yaay yi suñu sœur yi pas pour guddi gi mais bëccëg bi war ngeen mën a dajaloo waxtaan leen jigéenu ndeer yi xam nañu leen dégg nañu seen histoire manu leen toog ci biir kër yi rek di ràcc naan wala di lépp dina baax non non loolu du komba lii komba la ñépp ci bokk lii révolte populaire la Sénégal yépp a ci bokk ndax Sénégal bu amee jàmm est-ce que xale bi rek mooy am jàmm yow mi nekk ci biir kër gi doo am jàmm yéen ñépp ay am jàmm Mali taaw saa Traoré bi xale yi génnee di révolté mu tiire seen kaw jigéen ñi ñoo génn jiital seen i ay doom bi mu ne militaires yi nañu tiire seen kaw militaires yi dañ ko ne yow nag sa waxtu dof jot na duñu tiire ci kaw benn xale wala wala meer loolu day maanaam àdduna bi yépp boo leen bëggee ñu tourner ci Sénégal tey yéen jigéen ñi yépp wut leen lu rouge ngeen waddu seen ay sër ba mu dëgër ngeen génn ci mbedd mi pour seen doom yi def leen ko il faut sortir pour vos enfants parce qu'à un moment donné combat bi pour mu pour mu mokk pour mu mokk il faut nga ngeen génn il faut ngeen génn ne vous laissez pas divertir par ces bandits da ngay dégg ku la ne ah ah fii Dakar de dara xewul dañuy fen bu dara xewul na ñu taal internet bi ñu xool li xew nañu taal internet bi nañu taal TikTok bi xale yi wane li xew lan moo tax ngeen defe nañu couper TikTok parce que TikTok xale yaa ngi wane vidéo yi ak lakk-lakk yi ak njaaxum yi xew ci internet bi xale yaa ngi wan masiba naaru lay yooyu mais continuer leen filmer boo leen demee fu am internet ngeen yónnee ñu video yi ñu continuer koo balancer pour sénégalais yi gis ko comme toujours rek lawoon fawoon gatsa gatsa le président Ousmane Sonko est en danger te jour bu fa fanaane danger bi dafa yokk voilà jour bu Ousmane Sonko fanaane ci kaso bi danger bi dafay yokk xam naa ne yéen ñii ñuy waxal yéen seen xel bi yaatu na ndax ñun sama genre gi bu ñu waxee rek ndeysaan ñu ne dof la dof dof bu dof wala dafay drogué alhamdulilahi rabbil alamin yéen xam ngeen sama genre musuma sax naan ndox bu weex waxuma la sàngara de ndox bu weex sax duma ko naan ndox bu neex laay naan man nekkuma ci seen caaxaan yooyu duma tux yamba du ma naan sàngara duma ma loolu xam leen te dama ko masta def du loo masta def bàyyi de dama ko masta def loolu la ñu bëgg a dugal ci xelu nit ñi comme xam nañ ne mënuñoo jot ci ñun léegi dañu lay accuser dof continuer leen xeex gatsa gatsa ville morte ville morte da ngeen di maintenir maintien maintien maintien maintien maintien ba victoire finale mënuñoo trahir Ousmane Sonko ga trahiru leen ko ndax vous êtes extraordinaire trahiru leen ko de ndax wax dëgg yàlla fa ne j'en suis sur et certain que xolam sedd na ci yéen fi mu ne xolam sedd na ci yéen de Ousmane fi mu ne xam na ne la jeunesse patriotique sénégalaise est digne donc combat boobu lañuy ñuy continuer dañ koy continuer diaspora bi diaspora bi waxaat naa leen ko ma waxaat leen ko génnee leen kaalis am na ci yéen ñoo xam ne vous avez des millions voire des milliards sortez l'argent pour xale yi mën a nekk ci situation bu baax génnee leen xaalis ñun fayu ñu kenn waaye mën nañoo génnee xaalis pour xale yi nekk ci ay conditions yu acceptable voilà tàmbalee ko ci man ak sama moroom ñun ñëppay def gaa gis nañu yéen ñu baax ñiy def waaye na dolli parce que combat yi pour ñu gañee ko pour ñu maintenir cadence bi pour ñu maintenir détermination xale yi il faut ñu mën leen financer ñu nekk ci jàmm ci mbedd mi te finance boobu mënuñu koo teg ay parti politique naan Pastef na génnee Pastef du dugal daram ci loolu loolu ñun suñu problème mu bopp la dinañ ko lijjanti nous les patriotes comprendre nañ ko lijjanti képp ku bëgg Sénégal jëlal sa xaalis nga yónnee ñi nekk ci kaw terrain bi def leen ko nag ak anonymat xam leen kenn ku nekk ci yéen xam ngeen koo leen mën a yónnee xaalis pour mu mën a yegg fi mu yegg jarul ngeen di jël xaalis di ko def ci turu nit Sénégal après gars yi dem indil ko jafe-jafe ñun xam nañu nu ñuy def ba gars yi jot xaalis te kenn du takk voilà nañu dem xeexi nañu dem xeexi de nañu dem xeexi descendez sur le terrain descendez sur le rues jigéen ñi commencé leen wootante ngeen dajaloo ngeen doon benn say on na a besoin de mille femmes deux mille femmes dans les rues kan moo leen di laal dox ngeen di def yéen pacifiquement yéen bu leen lakk bu leen toj bàyyee leen toj bi ak lakk bi xale yi ñun danañu toj danañu lakk dañu rajaxe maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vidéo bi mënuma koo guddal ndax parce que xale yaa ngi ci terrain bi donc macha allah macha allah macha allah bu leen fàtte xale yi saabo boo leen di génn seen kër je répète bismillahi rahmani rahim loolu ñëpp xam nañ ko képp kuy julli tawakkaltu ila allah la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim tawakkaltu ala llah la hawla wala quwwata illa billah tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah tawakkaltu ala llah la hawla wala quwwata illa billah encore dinaa ko répété loolu boo ko waxee yàlla dalay aar keroog ba nga génnee kër ba ba ngay ñibbisi bismillah rahmaani rahim tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah fexe leen lépp loo leen man ñu continuer maintenir mentien maintien maintien yàlla mooy aare te yàlla du aar naa fekk bàyyi nit ku baax loolu mënta nekk yàlla du aar na fekk bàyyi nit ku baax yàlla du dimbali naa fekk bàyyi nit ku baax képp ku jóg te sa baax te nga jóg pour xeexal Sénégal billaahi wallaahi tallaahi ndam rek nga ci mën a jële maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ne continuer leen fa ngeen jàpp foofu la maintien wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.